thank you waaw salaamaaleykum mbokk sama gaal euh, ñu ngi fii tey euh, fii ci BKR ba jël Xaadimu Rasuul mais dañu am euh, gan muy Arona Gallo Ba muy xaritu président Omar Sow ñuy liggéey liggéey bu am solo ci élevage. directeur général SOGAS président union nationale des éleveurs du Sénégal monsieur Ba ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum wa waa Sénégal tey nag dama am mbégte bu rëy rëy rëy di ñëw ci sama xarit. sama xex sama xarit deug deug moy Omar Sow Omar Sow d'abord ma nga am content ci mom parce que Macky Sall mo am d'abord qualité li du du du du chakan donc mom ko deug ko mérité Omar sam la deug bu ko sam bi bi man ko sante parce que dafa jog elwas geudam dafa jox place am loolu sant yàlla la maa ngi sant bu baax a baax a baax beneen bi dafa ram dafa daw parce que ñëpp ñu di daw wuti xar pour seen seen famille loolu yaakaar la nag tey lii la ci Umar man mu naka seede man acteur la yi man seet na Umar c'est c'est un ci ci ci élevage pourtant élevage éleveur la mais daf ci jokk daf daf élevage euh, place am encore mu ngi liggéey mu ngi def te nag man dama doon doxantu ci dama jóge sam place def yenen place yi ma ngi doxantu mais fi la njëkkee parce que sama xarit la sama xarit la ben bakkan la donc ma ngi ko félicité ma ngi ko ñaanal di encore sant quand même euh Ndoye mo euh, bra droit Oumar quand même deug deug mom ak ak mbay donc ma ngi ko moom tamit ma ngi ko sant euh, bu baax baax L'église est euh, fierté la quelques mots euh, d'abord c'est de fêter Oumar euh, Sow le fêter parce qu'il a gagné la confiance du président de la République son espace Maxal. c'est ça c'est très important encore gagner la confiance de première dame Mariam Faisal, elle est là gagner la confiance de Mouham, qui est le corps direct du président Macky c'est important pour moi euh, euh, par ailleurs, c'est un éleveur, je suis d'accord, mais c'est un leader dans le monde élevage. C'est un, acteur qui mérite d'être félicité. Surtout, il est en train de participer dans la de Tabaski 2021, participer euh, dans le projet Tabaski, c'est aider le président Macky Sall. Parce que tout le monde, en tout cas, a confiance, tout le monde a l'espoir sur le président pour que, Tetabaski euh, euh, pour que soit à 100% une réussite. Euh, remercier le président c'est remercier de c'est remercier Alessandro Diop, le ministre de, l'élevage, qui est en train de faire une tournée nationale dans le pays. Donc, euh, Oumar, on le félicite. Président encore, il a tout fait. Il a tout fait parce que il a fait en sorte que, tout devienne facile aujourd'hui. C'était d'abord, c'était le financement, président a demandé à toutes les banques de financer les acteurs. Donc j'en profite pour remercier le directeur Scientia, LBA, l'actuel euh, euh, LBA, euh, la BND, l'ADER, le FONSTAP sont des, les, organes en tout cas, euh, financiers qui sont des derrière pour le financer, mais c'est le président qui a donné des intentions, on le remercie vivement. L'autre côté, c'était euh, les, les barrières douanières. Aujourd'hui, les moutons, donc qui dirait en mouton, les moutons viennent euh, directement, sans être bloqués, ni par les gendarmes, ni par la police, ni par la douane. Tout le monde est à Dakar aujourd'hui. De l'autre côté, c'est le site. Tous les sites sont aménagés aujourd'hui. Que ce soit en sécurité, que ce soit en matière allemande de bataille qu'on soit en tout cas en, sur place. La sécurité est assurée À 100%. Donc on remercie le président de la République vivement et surtout féliciter le président Oumar Sow avec tout ce qu'il a en train de, faire dans, la, dans le monde élevage. Il, il, il, il a félicité. Il a félicité Oumar. Le Merci beaucoup, Président. merci, merci beaucoup. ak Gerga bu grand moulin bi sàmm dal leen jàmm ci bergerie Khadim Rasoul nekk ci mariste de Dakar téléphone 77 639 94 30 yeen ñi bëgg ay xar yu baax yeen ñi ay xaru ay pur sang Excellent, leen bergerie Khadim Rasoul jënd fi seen xari tabaski ci yombo, yomb ci njëg gu xéewale ñëw leen ba gisal seen def nañu opération tabaski jaay lu ëpp 5000 moutons te ren bëgg nañu jaay 8000 jàpp 10000 moutons te ci xar yooyu am tabaski bu baax ci 150 000 ba 500 000 francs fii moo xit gërëm leen moo tax ñëpp woolu leen ñi ñooy bergerie xaadim rasul xam ngeen ni tabaski gaa ngi ñëw te war ngeen am ay xar yu mat tabaski buñ ci jógee dugg ci màggal ñu jaay leen ay xar yi gën fii ci bergerie xaadim rasul loo am ci xaalis am xar nekk fii ci Dakar ci Mariste de téléphone 77 568 50 07 wala 77 639 94 30 bergerie xaadim rasul ku yàgg ak ñoom xam ni dañu mën jur jege si leen ba xool te lépp di seen njëriñ njariñ na waa jula yi ñun ñun jula yi kontaan nanu xar yi moom yom na yomb na baax na mati mati sàllu toñ na fee fi ma toll nii war ngeen a bég war ngeen a bég dese Seex Saalo waayu Seex Omar ak jàmm ci bergerie Seydina Mohamed yow mi bëgg yar ay laadum yow mi bëgg ay xar yu baax ay xaru ras benn adresse ci Sénégal ay laadum pur sang ci femelle jeune mâle wala mâle bu jaar yoon fii rek la dootul feneen fudul fii waa Sénégal ñëpp leen xam ci xar yu baax fi mooy bergerie Seydina Mohamed nekk Asegna yëmbal ci wetu garage clando exil sa aajo faju ku ñu naxati ci xaru raas wala xaru laadum yow la neex soo bëggee ku la conseiller wala ku la teg Téléphone ci nga am 76 488 54 wala 77 464 93 99 wala nga daagu ndànk egg segna garage clando ñu jox la ay xaru pur sang ay xaru original fii mooy bergerie Seydina Mohammed